Bonsoir et bienvenue à ce sixième numéro de votre émission La Ligue chez vous, l'émission qui vous plonge dans les actualités du football local. Ce week-end, on jouait la septième journée. Tenguet FC recevait au stade Ngalandou Diouf la Linguère de Saint-Louis. Nos reporters Babacar Tambedou et Fatima Tal étaient avec les deux équipes avant la rencontre. yi de vous retrouver sur la première chaîne de télé privée du Sénégal la 2STV tey nag ñi ngi fii ci Tëngéej Tëngéej mi nga xamante ni mooy dalal tout à de Saint-Louis ci match championnat Ligue Pro comme ñu koy amalee saa su ne nag laata match bi dañuy doxantu rek daal di dem seeti joueurs yi naka lañ fas yéene aborder match bi waaye tamit seen staff waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moo ñeel championnat bi. match bi match bu am solo trop trop trop si ñu relancer waat. parce que am nañu équipe boo xam ne war na mën tegle ay victoire yu bëree bëri mais gàllankoor amul équipe bu mu dul daal léegi fi mu nekk nii xëy na Linguère la coïncider mais équipe bu mënanti doon tamit suñu objectif mooy retrouver la victoire te pour retrouver la victoire on passe pas nécessairement par la Linguère te aborder nañ ko ci état d'esprit bu am solo euh, toutes les conditions sont réunies pour que jour yi ñëw tey defal ñu match bu baax on a une population qui colle derrière l'équipe et des supporters yoo xam ne vraiment que équipe bi gagné que équipe bi ñàkk gagné du ñu sonn duñu tàyyi ñu topp équipe bi yëpp eh, di leen wax ñu continuer sur cette lancée et incha allah dinañ def tout ba bëggal leen fii ak saison bi di jeex. Eh, Linguère équipe bu mag la soo xoolee historique footballu Sénégal Linguère dafa bokk ci équipe yoo xam ne bokk nañu pratiquement ci top 4 eh, yi laa mën a wax donc mu doon équipe bu mag équipe buy jóge Ndar te dafa tàmm di voyager bu baax ay match am ay l'extérieur yëpp pratiquement match yu baax lay def donc ñu ñu koy dalal tey tey ñu xam ne ne match bu jafe nañuy am parce que match boo xam ne la du yomb ci ñun waaye jël nañ suñu matuwaay yëpp tey pour def match bu baax. ñu ngi jóge ci phase boo xam ne dafa métti ndax dañu amoon trois victoires jéeg-jéeg équipe bi am deux défaites ak nul te dafa nekk match bu importance ñun ndax il faut ñu gagné ko pour relancer wu kon tey jàpp nañ ñun am nañ match bu métti tey te incha allahu rabi nañ def tout pour gagné ko lañ soxla trois points yi incha allah. tey jii naka yow en tant que capitaine de l' équipe euh, TFC naka nga fas ne booster équipe bi porter équipe bi vers la victoire. waaw waxtaan nañ ci ñoom booster leen rek pousse leen xam nga ñu def full ak fayda ndax euh, gis nañu trois journées yu mujj yëpp équipe bi comme nu mu débuté woon nekkatul équipe bi waaw te xam nañ li ñu war waxtaan nañu ak booy ñoom ñëpp waxtaan na ak ñoom te incha allahu rabi dinañ def tuuti ay yamasi bu soobee yàlla. ngi noonu ginnaaw ñu jógee TFC rek dañuy daal di jubal rek euh, xool yi laay fee Linguère de Saint-Louis moom tamit euh, naka lay waajalee matcham bi. donc match bi ñëw nañ tey à l'extérieur di jouer ak Tëngéej euh, di wut si résultat bu baax d'abord parce que ku ne xam nañ suñu position actuellement baaxul mais comme championnat la ñuy jouer course de fond la du vitesse donc dara demagul tey du def lu dul jël si suñu chance si biir Tëngéej def match bu baax. pour euh, pour yóbbu euh, ay poñ incha allah. boo seetloo depuis pratiquement trois rencontres wala quatre xam nga on n'a pas eu de victoire du benn mache bi nga xamante ni mun na lancer suñu championnat d'autant plus que ñu ngi joué benn équipe bi nga xamante ni c'est mun nañ ko jàppee comme favori championnat bi du coup pour man benn mun war na mun a nekk match de référence ci ñun quoi. mais Tëngéej moo leen di recevoir est que tamit fokkati victoire bi tamit dina yomb. non non du doon gi na xamante ne dina yomb moo tax euh, préparer nañ si bépp circonstance waaw que ça soit ñu jege fi hold-up comme ni nga ko waxee fokkati victoire bi wala ñu jege fi un point en tout cas bien préparé daal pour yóbbu fi dara incha allah. Linguère voulait sortir de la zone rouge, mais le club de Saint-Louis est tombé sur une équipe de TFC qui est restée sur quatre sans la moindre victoire. Menés au score après un but de Suleiman Sissé, les protégés de Babacar Ndiaye sont revenus au score deux minutes plus tard. Mbaye Jacques Ndiaye, seul au second poteau, n'a donné aucune chance au gardien de but des Samba à l'Union. But de Mbaye Jacques Ndiaye Légalisation de TFC

puisque c'était un match entre deux équipes. Chacune d'elles avait besoin de points. La Linguère qui se trouve dans une zone euh, de relégable et TFC qui depuis trois journées ne, ne parvient pas à gagner. Et c'est ainsi que donc, nous avons assisté à un match très plaisant où les deux équipes ont à la fin fait match nul, un but partout. Le contenu est là, l'équipe joue. L'équipe joue, mais euh, l'équipe ne parvient pas à marquer les buts. Quoi. Côté attaque, c'est modeste parce que bon, les alliés Thiamé euh, Gambien la day door a ñëw miinagul championnat bu baax et euh, il est plus bon sur le côté tey ñu replacer ko si axe bi miinagul noonu Talla Benzema aussi euh, miinagul noonu championnat parce qu'il vient de la nationale Pa Omar Fall dafa toog at blessé looloo waral rythme bi ñëwagul bu baax mais suñu dajee avec des recrues surprises yoo xamante ne ñoo ngi ñëw. am nañ ay recrues surprises qui vont venir renforcer cette attaque et Tëngéej mën na dérouler bu baax incha allah. Dans les autres stades, Dakar Sacré-Cœur a battu le Jaraaf par 1 but à 0. Djambar a remporté le derby de la Petite Côte par 2 buts à 0. C'est sur ce même score que Génération Foot a gagné AS Douane. À Djurbel, les Huiliers ont gagné l'US Gorée par 1 but à 0. La Pekin a arraché le match nul à Ziguinchor face au casaspor et Guédiawaye Football Club a étrié Seneps par 3 buts à 0 avec un doublé d'Ismaïla Sissé. Changement à la tête du classement, Guédiawaye FC avec 14 points et le leader grâce au nombre de buts marqués. Casasport est deuxième avec le même nombre de points, suivi de Djambar avec 12 points. Suneor est quatrième et le Giraffe de Dakar occupe la cinquième place après la septième journée. Dans la zone rouge figure Seneps qui n'a enregistré aucune victoire, l'AS Douane et la Linger avec 6 points. Place maintenant à votre rubrique préférée, le jour de la une. Babacar Tambedou a rencontré Mokhtar Koité, le maître à jouer de TFC, à la fin du match contre la Linguère de Saint-Louis. 10 de Tëngéej FC moom lañ daal di homme du match. alors euh, Ndiaga wala Mokhtar ñaari tur yooyu bu ñu ci wax rek euh, je pense que benn la parce que ñii sax Ndiaga la ñuy Ndiaga Ndiaga la ñuy gën a wax donc tey euh, nga nekk suñu jour à la une li nga xam ne moo di suñu émission la Ligue chez loolu nag gannaaw bi nga xam ne yow la ñu tabb euh, nga nekk euh, homme du match ci euh, seen jongante bi dox seen diggante ak les Sàmm Linguère de Saint-Louis naam sax ndam demul ndam dikkul mais prestation bi nga xam ne moom nga def tey moom moo tax ñu jël nga nekk suñu joueur à la une njaga ñu ngi ah, leen nuyu. moo lay fay bu baax a baax di kontaan bu baax si trophée bi ma jox c'est un travail boo xam ne c'est un travail collectif malgré que mën leen jox homme du match mais teewul. on est une équipe daal une famille on on continue à travailler parce que c'est un championnat. alors Ndiaga fan la jaar ba ba yegg si fii. ah Ndiaga doomu Gorée la sama pré sama carrière yëpp Gorée laa ko defee bii mooy sama deuxième année ak Teungueth FC ma ñëw encore parce que daaw j'avais vécu de hauts et des bas di am ay blessures mais sunu borom suturaal ma ren bon ma teel a wu ak Teungueth bu baax a baax di sant nag président jàppale na ma bu baax a baax si vacances yi. di sant tamit sama papa bu baax ak sama yaay parce que ñoom it noo ma taxawu daal moo tax tey seul le travail paye quoi. alors ñu gis ne aussi euh, début euh, championnat bi euh, naam yéen ngi jël li nga xam ne moo di quatrième pour le moment ci championnat bi ñu xaari ni peut-être yeneen ni jongante yi tey yow na nan ban jàngat surtout ngay def par rapport ak ce début championnat. ah mais c'est un championnat championnat la treize matchs la aller et retour donc match nul bi. baax na baaxul parce que un point la moo gën defet du noonu mhm. l' essentiel on continue à travailler jéem a xool suñu prochain adversaire AS Pikine pour jéem a arracher foofu suñu victoire incha allahu rabbi alors tey nag ci euh, njàgg ci li nga xam ne moo di carrière wax nga ko sànq euh, da nga jógee fi nga xam ne euh, moo di US Gorée sa carrière yëpp foofu nga fi defee ren moo nekk sa première année fi nga xam ne moo di Tëngéej FC ngan nga ko gisee sa intégration ndax yomboon na waaw yomb na ak yombul parce que damay sant yàlla parce que supporters yi da leen di sant bu baax parce que accueil bi chaleureux na te ñoom it bëgg nañu jour l'essentiel moom moyen moyen bi rek moo am solo te ngay support suñu supporters yi moom da leen di wax merci rek nañ gën a ñëw rek championnat la bu kenn xaadee tôt ou tard li ñuy yóotu moom incha allah rabi dinañ ko jot. ci wàllu carrière tey bu fekkoon da ngay toog nga nga un def benn analyse par rapport sa carrière fi nga toll ak fi nga jëm lan lañ ci mën a xaar. ah mais ay ndaw na nag nii liggéey rek. nañ continuer di liggéey rek après lépp dañ koy teg suñu loxo suñu borom. nañ liggéey rek incha allah rabi. alors parfois aussi dañuy faral joueur suñu joueur local yi ñoom dañuy faral di wax ni ak euh, lu ñu nekk ci championnat bi itam ñu ngi xalaat peut-être euh, sélection euh, ci équipe nationale waaye it peut-être am contrat dem tukki ndax loolu parfois aussi du nekk benn pression ci yéen. ah mais c'est pas une pression parce que nit ku nekk dafa am foo jugee am foo bëgg a yegg du noonu. tey ñun ñëpp suñu bët bi ñu ngi koy teg si autoroute Sadio Mané parce que boo xoolee tey niveau bu mu nekk ak boo xoolee tey lu mu mën a defal dëkkam ak avec sa famille ñu tamit bët boobu leen am. dëgg la football championnat Sénégal c'est un football boo xam ne ñëpp ñu ngi koy suivre y a beaucoup de talent ici nañu fédération bi gën a jàppale médias yi gën a ñëw appuyer suñu championnat bi li si des après ñun boobaa pour ñu génn day yomb quoi incha allah rabi nañ ko ne di liggéey rek. alors xam nañ aussi euh, au niveau dafa am lu mu laaj. Mhm. rawatina aussi suñu championnat bi ak fi mu yegg si est-ce que loolu yéen a ngi koy bàyyi xel ba si seen wàllum dundin seen wàllum doxalin ngeen nekk ci tànk yooyu. Ah, waaw bien sûr loolu moom c'est très important hygiène de vie surtout c'est très important pour un sportif parce que moo lay permettre li nga bëgg a def si football nga mën ko def parce que boo xoolee ay Pirlo ay trente cinq ans trente sept ans xooli Chris loolu hygiène de vie kese la loolu la. alors euh, Ndiaga ci euh, beneen fànn euh, peut-être au la de leader technique bi nga xam ne moom nga nekk si biir terrain bi peut-être du ñàkk yeneen qualité yu nga xam ne di nga ko am parce que parfois dinañ dinañ waxtaan aussi yeneen koy ko ñu wax ñu un peu kan mooy Ndiaga. waaw ah, moom. benn joueur rek boo xam ne man moom lép lu may def un collectivement laa si jiital ba pare parce que c'est un travail d'équipe ba pare après am na fu muy tolloon nag damay jël sama responsabilité jéeloo équipe bi jéem a créer des ñett pass yi su ma amee occasion tamit pour dugal ko dama koy dugal l' essentiel c' est l' équipe qui gagne daal lépp nañ ko def collectivement ba pare après individualité bi day ñëw. Euh, côté individualité bi sax bi nga wax noonu ñu taxaw ci euh, tey lan nga jàpp ni mooy sa point fort ak lan nga jàpp itam euh, peut-être war nga war nga si gën a mën a taxaw mu gën a baax. man moom l' essentiel ñëpp xam nañ ko techniquement je très bien je suis à l'aise quoi leen xanaa lu may doole rek mooy agressif si porteur bi jéem a récupérer maximum de balle boo xoolee sax léegi maa ngi football di am ay carton te man moom daanu moom ay carton. mais loolu yëpp pour bëgg a pro progresser la. nga wax si gu mujj. ah instant yi damay wax félicitation à Tëngéej di wax supporters yi merci beaucoup trophée bi nag sama yaay laa ko moo ko moom sama yaay ma mère ma vie moom trophée bi merci beaucoup. Mactar Koité Mactar encore. Koité Euh, Serigne Mokhtar te euh, il est le du jeu du Tenguet FC. Parce que boo xoolee depuis le début de la saison, il fait partie des meilleurs joueurs euh, de cet effectif de Mbaye Badji. Mom, euh, boko tégué ci digue bi day football, organiser lu neex, boko démé fixer ko point aussi mu jouer. Parce que boo xoolee contre Seneps Excellence de Thiès, mo ñu joxone euh, victoire bi euh, à Thiès sur un magnifique but. et but bi demoon na ba Canal Plus euh, gars yëpp partagé ko bégee ko aujourd'hui aussi il a sorti un très euh, gros match malgré le match nul et il a pas marqué mais il a fait un très gros match. Comment le faire sur Koita il faut aller Koité Koité Serigne Mokhtar Koité et le but dugg na daay di di daaw oh, ñaari bal ca dara la. <laughs> maam Kumba Lamba Ndoye jël oh là là Serigne Mokhtar Koité je vous l'avais dit et je vous l'a botté au fond des filets Nat Diop oh <laughs> bon commentaire bi commentaire moom ça vient par inspiration rek parce que su ma toogee nii mënu ma ko commenter quoi mais match bi nu mu ñëwee rek noonu lañ koy inspiré après on le donne Koité Koité Koité <laughs> et c'est comme ça que ça vient et Koité c'est un très bon joueur un magnifique footballeur et on espère qu'il fera une très grosse saison il sera épargné aussi des blessures et il nous fera euh, aussi euh, beaucoup de bonheur remportera avec nous beaucoup de succès euh, cette saison avec euh, le Tenguet FC, Inch'Allah. L'actualité de la Ligue 1 est marquée par le limogeage de l'entraîneur de Pikine Massamba Sissé après la défaite lors du derby de la banlieue à la sixième journée. Je me dis tout simplement que les dirigeants ont été un peu euh, pressés. Ils n'ont pas donné quand même suffisamment de temps à l'entraîneur pour pouvoir quand même mettre en place quelque chose. Mais je crois bien euh, quand même de se mettre en place. Peut-être que le temps aurait pu permettre à l'entraîneur mettre quelque chose en place qui puisse quand même permettre. Mais comme vous savez, les ambitions de l'AS Pekin, c'est c'est pas la place de l'AS Pekin actuellement. C'est l'une des raisons qui a fait qu'effectivement, ils ont peut-être euh, ils ont dû se séparer de, de l'entraîneur. En raison de la Coupe du Monde, la Ligue a reporté les matchs de ce week-end. L'ensemble des rencontres auront lieu le mercredi 7 décembre avec le derby des leaders au classement entre Guédiawaye et Casasport à Ziguinchor. Djambar va accueillir Sunéor, Pekin, avec son nouvel entraîneur Mohamed Souli, va recevoir Tengue FC à Alassane Djigo. Les insulaires, 10e au classement, tenteront de se racheter face à la lanterne rouge AS Douane au stade Ibamar Diop. La Linguère va jouer à domicile au stade Mawadouad contre le Giraffe de Dakar. Génération Foot va faire face au dernier au classement CNEPS au stade Djibril Diagne. Tombeur du Giraffe, les protégés de Hassan Fall vont jouer contre le stade de Mbour. C'est la fin de ce numéro de votre émission préférée, La Ligue chez vous. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la 2STV.